li nga am mbégte bu rëy teew fi tey ci invitation euh, délégation rapide à l'entrepreneuriat des des femmes et des jeunes mais ci invitation isam projet USAID yi nga xamante ni ñooy entrepreneuriat investissement mais aussi dooleel mbay ak Nafoore Warsaji euh, foire bi nag FIARA dafa nekk foire boo xamante ni du lu tuuti waaw euh, parce que Sénégal defe naa foire bi mooy sël foire bi nga xamante ni mën nañ ko tuddee foire international jëm ci wàllum mbay mi ak wàllum càmm ji parce que boo xoolee lu toll ci euh, fukk ak juróom-ñaari dëkk maanaam pays ku ci ne yónnee nga ndaw. ba loolu yëpp toll ci ñetti téeméeru exposant yoo xamante ni ñi ngi fi tey di exposer seen ay produits moo xam ci wàllu produit agricole transformé moo xam ci wàllu càmm gi gis ngeen xar yeeg nag yeeg bëy yi loolu dafa nekk loo xamante ni lu am am solo la Sénégal nag jamono ji ñu toll defe naa ni waxtaan yi nga xamante ni ñu ngi koy amal mu jëm ci wàllu développement économique ci Sénégal waxtaan yi ci ëpp solo dafa dellu ci wàllu mbay mi parce que dëkk la ba nga xamante ni ci wàllu mbay li ñu war a def wala li ñu mën a def bëri na te defe naa ni euh, njiital réew mi nga xamante ni fal nañ ko bu yàggul li nga xamante ni fekkoon na ko fi gën koo renforcer mooy Sénégal ñu fexe ba lépp lu ñu dundee bu doon loo xamante ni fii ci réew mi lañ ko bayee waaye rawatina ñu bañ a yem ci mbay mi kese li ñuy bay itam ñu fexe ko transformer moo gën ñu koy bay fii jéggaane dem bitim réew andiwaat ko fii pour njëg yi gën a cher. ci néew ji doole yi nga xamante ni mënuñ ci mënuñu ko jënd beneen bi nag tey wax naa ko léegi DER ak USAID projet yi nga xamante ni amal na ko fii dañoo organiser lu ñu tuddee journée thématique alors journée thématique bi nag mënut woon ñàkk waaw parce que dafa bokk ci li nga xamante ni dafay jëmmal seen présence ci FIARA bi panel bi nga xamante ni def nañ ko léegi mu dellu ci wàllu solution entrepreneuriale lu am am solo la parce que invité nañu ay entrepreneurs yoo xamante ni ku ci nekk am nga jaar-jaar boo xamante ni ndaw ñi mën nañ ci sukkandiku pour développer ñoom tamit seeni entreprise parce que ñu ngi wax waxu emploi lu jafe la kon fi ñu toll ci réew mi ci wàllu agriculture ak opportunité ñu am yëpp li ñu war a fexe mooy ndaw ñi ñoom ñëpp ku ci ne jublu ci entre ci agriculture fexe ba yow ci sa jëm bopp nga doon li ñuy wax un créateur d'emploi. tey li ñu fi indi mooy euh, balaa may wax dara damay dellu si li nga xamante ni moom la DER di liggéey. maanaam DER ñetti pàcc si lay yëngatu danay financer maanaam danay lebale mais balaa mu lay lebal aussi dina defal dina sot si ki muy lebal xam-xam bu la defalee xam-xam aussi dina fexe ba gunge la maanaam fexe ba nga am këyit yi nga xam ni moom nga war a am mooy registre de commerce ak ñi nga xamante ni tey moo ñu fii ndi ñoo fi nekk DER du tey rek lay doog a ñëw si foire bi donc bi ñu créé ba léegi at yii yëpp ñu ngi ñëw si foire c'est pour wax ni en tout cas gis nañ si njëriñ. te ñi ñuy indi aussi gis nañ si njëriñ moo tax ñu nangu di leen indi ñi fi nekk nii tey mooy ñoo xamante nii ñoom ñëpp DER moo leen lebal moo leen accompagner moo xam ñii cinquante mille lañ démarré moo xam ñii ñu ngi si ay plus de dizaine de millions ma dellusiwaat di wax ni DER dafa lëkkaloo réseau ak USAID ñetti bànqaas USAID lañ lëkkaloo mooy dooleel mbay Nafoore ak investissement donc lëkkaloo boobu moo tax tey ñu mën a dajale xale yi fii waxtaan ak ñoom wan leen ni ndax mën naa nekk ndax xale mën naa jot ci financement yi xale aussi mën naa def entrepreneur maanaam mën na investir du ku nekk da ngay tàllal sa loxo pour dem uti liggéey ci gouvernement bi parce que am na ñoo xamante ni aussi seen gouvernement bi def na fi ay jëmtukaay yoo xam ni mën nga fa dem uti fa xaalis pour mën a liggéey donc loolu moo waraloon tey ñu échanger ak ñoom indil leen nag ñaar ñoo xamante ni nii ñu ngi yëngatu ci mbir mi am na koo xam day bay maanaam fraise lay bay am na keneen koo xam ne day transformé day defar caay day defar cere di defar soow donc ñooñu lañ indi woon donc ñu wan seen expérience seen jaar-jaar xale yi aussi posé leen ay questions bu ko defee xale yi gis ni njëriñ loo xamante ni ñoom suñ delloo dinañ ci mën a sukkandiku pour mën uti ay financement may waxaat ni DER si at yi mu liggéey maanaam fanweeri milliards ak juróom-ñaar la ñu génnee jox ko financement yi si fanweer ak juróom-ñaar yooyu ñaar fukk ak juróom milliards yi si dañ ko dañ ko jëgleel agriculture fukki milliards yi ak ñaar ñu jëlee ko élevage mais loolu yëpp ñu ngi ko jox lu toll si fukki junni maanaam fukki junni nit lañ ko lebal donc ñoo xamante ni nii ñu ngi si réew mi ku fa dem fekk leen fa ñu ngi liggéey ak ñoom te am na si ñoo xamante ni macha allah dañ leen a fekkoon tout tànk léegi tey aussi màgg nañ di ñaan yàlla aussi xale yi ñëw fii tey suba ñu mën leen aussi jàppale. ba nga xamante ni suñu paree aussi budul dee rek muy keneen koo xamante ni nii si gouvernement bi la wala si état Sénégal nga bokk pour ñu mën a def synergie maanaam li nga xam lëkkaloo bi ñu nekk di def tey ak USAID moom la ñuy ñaan aussi def ko ak ñeneen ñi nga xamante ni nii ñu ngi tàllal suñu loxo képp koo xamante ni nii bailleur nga képp koo xam ne état ngay liggéey am na nag ñeneen ñu ñu lëkkalool mais ñu ngi gën a yaatal nga xam ne ñoo xam ne ñoo bokk jumtukaay ñoo bokk lu ñuy def ñu gën a dajaloo bu ko defee ñu mën a jàppale réew mi que tey suñu combat maanaam suñu xeex bi gën a mag du sànnante ay xeer mais dañoo war a guerre pour jot suñu souveraineté alimentaire donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo ñu ñor te DER mu ngi siy def jéego yu mag ndax téeméer boo jël juróom fukk yi ak ñett si wàllu mbay lañ ko jubal donc pour wane ni DER en tout cas budget mi yëpp presque agriculture moo si